li ci yéeni kaay yi Bob yegg si nañ ci ñu fas yéene leen euh, jukkil gën a fës ci xëtu yéeni kaay yi fas yéene ko doorek Walfu Quotidien mi xëy dalal Amadou Ly doonoon gànuk euh, grand format ci Walfu TV waxtaan gu yaatu la seq ak Moustapha Diop ak Pierre Edouard Faye euh, ci googule émission Akile mi nga xamante ne siiw na lool ndax digganteem ak Senelec ba tax nañu duppee ko Amadou Ly Akile wax na ci tolluwaay réew mi ne saay bu jiitee réew mu senegal ëllëg bëgg na cee béy waaram ci wàllu itamit suqaliku développement gu ñoŋ xam le ne itamit développement munta am te laluwul ci xam-xam ba tax na xam-xam googe sàkku na ko ci ndaw ñi sàkku na ko ci askan wi moom Amadou Ly ay kàddoom ci Walf Quotidien keneen ku ñu gis xalimaam ci biir yéene kaa bi di maître Cheikh Niass PDG bu groupe Walfadjri ne ci weeru février gi ñu jëm dina génne ab livre goo xamante ne da koy duppee la mafia d'état enquête gu yaatu la jëm ci wàllu aide à la presse na muy demee la mu na mu waroon a demee te demeewu ni maître Cheikh Niass wax na ko jot waxtaan ak Amadou Ba mi ko dig ne saay bu faloo ci bopp réew mi ëllëg euh, dina soppi lu bëree bëri euh, di ay diggeem moom Amadou Ba mu ngi ci yéen kaabi di Walf Quotidien yéen kaabidi di direct news xëy waxtaan ak yeneen candidat Boubacar kamara ne dellu soit tam ñib seem ci réew mi lenn rek moo ko sabab mbokk na ci euh, ngir tabax Sénégal ne bëgg na daal Sénégal goo xamante ne gu mucc ayib Sénégal goo xamante ne dañ fi sàmm jàmm ji fi ne ne bu faloo dina ci béy waaram tabax Sénégal nag bokk na ci di ko yëkkati yi moom Boubacar euh, Camara ay kàddoom ci direct euh, news yéen a bi di euh, source ne jiite réew muy ëllëg dondu soxal Anta Babacar Ngom candidate la ma ngay dagaan baatu askan wi ma nga woon ca diwaanu Podor waaye foofee daj na fa lu métti métti joxoña sax baaraamu tuuma waa gendarmerie na ñoo ko jóor ay gaz ay gaz lacrymogène ba ñenn ci ay jege ñaalem jëlee ci ay gaañu gaañu yu métti métti don Anta Babacar Ngom ay kàddoom ci source daal geneen di Aminata Touré wax na ci tolluwaay rew mi xam ne ne daal bëgg na saay bu faloo ëllëg askanu Sénégal euh, seen kóolute dundaat seen digganteep yoon maanaam ñu amaat confiance ci justice su Sénégal Aminata Touré yemu ca lu aju ci dossier Ousmane Sonko ma ngi cay bàyyiloo xel magistrat yi ngelawaay atte leen dëgg ci bile dossier yéen kabidi la mandané ëllëg incha allah la verdict bi fas yéene jib ñeel la yoon di dogal ci mbirum Ousmane Sonko nax turam dina fësaat ci liste électorale yem ci gindeeku yéen kabi di enquête xëy dañu ko enquêtal euh, procès googeeg na mu demee yéen kabi ne ñaari camp yi jàkkaarloo nañu tribunal moo xam avocat yi féeteeg Ousmane Sonko ak avoca nguur gi bokk na ci yéen kabi di ñu xam lekk Ousmane Sonko bokkam ci élection présidentielle yi daanaka tàmbali naa tàq suuf ndax ëllëgam ci wàllu politique lépp mu ngi ci loxo juge bi moo ko ŋab ci jamono ji ëllëg dina ci euh, gindi askan wi ca lam cay dogal yéen kabi di réew mi am ba des mooy Ousmane Sonko mi ñu jëlee turam ci liste électorale tax mbir yi tere ji fa mbaxana donné benn ay avocat am gis ne daal état wayu moom la ñu jëflanteel maanaam état jaay dooleek yeneen ak yeneen ay avocat Ousmane Sonko kenn ci ñoom xam ne ne tey nguur gi dafa jaay doole Ousmane Sonko xañ ko sañ-sañam ak yelleefam ci mim réew te duñu seetaan mukk ñu koy sànq mu bañ a bokk ci élection présidentielle yu 2024 bu ñu sukkandikoo ci maître Ciré dor Ly mi xam ne ne bi le dogal ak lu mu ci munta am recours mun na ci ca am maître El Hadj Diouf itamit xamle ne Ousmane Sonko na fàttali ne ci jamono ji moo wegutoon yoon ba tax na jafe-jafe yu mu am ci wàllub yoon moo ko teg boppam euh, contumace gañ ko dan sax leeral na carte ya waratul bokk ci élection maître El Hadj Diouf moo ni waxee yéen kabi di le quotidien génnagul tribunal procès googee nañ ko ba ëllëg ci alxamis gi euh, Sonko moom téyetul mbir yi nam ko téye woon bu njëkk noonu la ko yéen kabi xamle ne bu ñu defoon ndànk sax prolongation que yeneen recours mbir yi ci daar daar mun na jafe lool te mbir yi bu yàggee nag turu Ousmane Sonko munatul bokk euh, ci liste électorale yi mu ngi ci yéen kabi di le quotidien yéen kabi di 24 heures xëy waxtaan ak euh, waa Pastef Ousmane Sonko mi ñu ne ma ngay xaar lay tukkee ci dogalu àtte ba ëllëg ak jàmm lañ ko fas yéene firi wala boog ñu dëtt ko ci waxin ëllëg lay xam ndax turam dina euh, dañ ko gisaat ci liste électorale yi audience gàk na mu demee maître Bamba Cissé xam le ne di ba des mooy de gàkkal candidature am ci élection présidentielle yi ñu jëm yéen kaa bi wax na ca wax itamit ci mbirum parrainage Mamadou Lamine Diallo gis ne parrainage bi de deal la arnaque la teguwul ci yoon naka nguur gi di doxeele bokk na ci lam ca jublu mooy gàllankoor yenn ci ay candidat ña ca des mu nasaxal leen seen bokk ci yile wote doon lu jaaxal Mamadou Lamine Diallo yéen a bi di l'info ne démb tàngoon na jër ca tribunal euh, daanaka xët-xët ga bari woon na ci diggante ay avocat nguur geeg ay avocat Ousmane Sonko euh, kenn ci avocat am di maître Ciré Clédor Ly xam le ne daal yoon la ñu bëgg euh, mu wax ci bile dossier te itamit lépp loo xamante ne Ousmane Sonko mu ngi koy daj ci mim réew kenn tegu ko ko lu dul nguurug Macky Sall moo salfañi ak ak yelleefu Ousmane Sonko maître Boubacar Ndiaye di avocat Ousmane Sonko jàpp ne gi sax jaay doole la def jëmee ci Ousmane Sonko Diouf xam le ne dara amu ca yoon mooy atte ci mim réew ba tax na dossier Ousmane Sonko féete na boor mu ngi ci yéen kabi di l'info yéen kabi di yor yor gi mu ngi dektal radiation génne gañ ko génne ci liste électorale yi taxoon Ousmane Sonko kalaame mbir ya fu mbaxana doone benn fukki fan ak ñeent ci weeru décembre gi ñu ne ay avocat ñoom wax nañ ci ñu ngi xaar dogal gi waaye nag avocat Ousmane Sonko daanaka gësëm nañu démb agent judiciaire de l'État ci gogule eh, tribunal yéen kabi du Sud tribunalu Ndakaaru mu ngi ñuy dégtal tribunal googee ëllëg la fas yéene atte la fas yéene tranché eh, ci dossier Ousmane Sonko maire bu Ziguinchor dina xam ëllëg ndax dina bokk ci élection présidentielle yi ñu jéemam déet yéen a kabi di las ne mel na ni dossier Ousmane Sonko ay avocat xam nañu fa muy teeri ji maanaam xam nañu fa muy mujjee bu ñu sukkandiku ci daas ci xëtam yéen kabi di le verdict news di ñu dektal dossier geneen di maître Moussa Diop mi ñu ne bu deful ndànk mun nañ ko rajee ci baro bi mun nañ ko ci caa génne gannaaw kaddu tuuma yamu yëkkati teg ko ci ndoddu njiitu réew Macky Sall teg ko ci ndoddu Jean-Claude Mimran ba ci Aly Ndiaye yamu tuumal ne seen loxo dafa laale ci ay contrat jama fii ci mim réew ba tax na procureur mun na ko déglu maître Euh, Diop euh, jiite woon fii Dakar dem dikk euh, ci jamono yéen kabi di le public quotidien du ñu xam lekk booy jiine Pape Modou Fall Baye Modou Fall delluwaat na ca kaso yéen kabi ne gannaaw buñ ko may afiya ci weer yàlla ñu weesu defaat na njombe ci diggante bi ba démb ñu atte ko ma nga sous mandat de dépôt na fa mu jóge woon di kaso moom Baye Modou Fall di booy jiine leneen ci xibaar ci yéen kabi di le soleil mu ngi ñu dégtal ndajeb Genève njiitu réew ma nga fa ñu fay waxtaanee ak ak yelleefu doomi aadama njiitu réew Macky Sall wax na ni ci àddina di doxee ak euh, Sénégal ak fu ci toll yéen a kaabi di turbine mu ngi ñuy dégtal njiitu réew mi euh, Macky Sall mi ñu ne yekk na lu mel ne xeme société civile bu Sénégal ne bari na lu yàqu ci réew mi du kenn ci waa du kenn ku dul société civile waaye nag euh, kàddoom yooyu le nag tontu nañ ko ci saa si Birame Seck bu forum civil xam le ne Sénégal gi ñu ne mal gouvernance ñàkk yoonal a fi bokk teewul njaaxaanaay jaay dooleeg bunduxatal ak salfaañi ak ak yelleefu doomi aadama buñ ko doon natt tey Sénégal gii la wulee ñaay mu ngi ci yéene kaay bi di euh, turbine yéene kaay bi di stade mu ngi ñuy dektal Paris ma ñu ne qualifié gagné rek moo fa sës diggante mag Dortmund ngir mu mun a euh, xuusandi ci euh, bi de jongante lu ko moy mun nañ ko humilier maanaam toroxal ko yéene kaay di suñu lamb di ñu dektal jàkkaarloo gi dox ci diggante Zarko ak Diène Kairé ñaari mbër yi jokkalante nañu kaddu kenn ku ne bakk na sa morom bokk na ci Zarko xamle ne daal googule komba du ca maye lenn ndax du moromu euh, Diène Kairé Diène Kairé xam ne itamit ne dina fexe ba combat bi du mat euh, fukki minute euh, lépp lu ca am dina fexe ba jëlee ca ndam bu ñu sukkandikoo ci Diène Kairé suñu lamb xëy dina géewal te arbitre sifflé gul dañ ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo tënk la woon ci xët abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ay xibaar yu wér te aju si réew mi ak ci bitim